mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu gën jaa tedd nuyu muy asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, nuyoo boobu nag ñu ciy jiital euh, sunu xalifa général Cheikh El Hadj Kéba di ko naa ñaanal yàlla may ko wérug jëmm ak wérug xel ba pas-pasam ak yéeneem ci tool lislaam matal ko ñu ànd ko ci keppaaru Cheikh Moussa. di siyaare sunu kilifa muy rakkam ju baax ji Seydina Alioune nga xam ne tey jii ah, buñ toogee di wax tey jataay bii lépp ci moom la ko yàlla dogalee muy toogaay bi su ñett fanu koor nga xam ne tey jataay bi ñu def nii moom mooy li ko sabab di ko ñaanal moom it ah, yéen bi woyof yàlla yàgg ko suñu kanam te wéral ay cëram ak mbooleem ay rakkam ak mbooleem kilifa yi ak mbooleem taalibi Cheikh Moussa yi di am ak cant ak mbégte bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ci programme bi ak ni ngeen ko déroulé macha allah di wax ne xaj na a ah, heure bii mu ngi daan fekk ca bayaalu ñetti fanu koor ba ñu nekk ci yëngatu yi waaye nag ren ak ni ko yàlla dogalee eh, ren lii moo soob yàlla ah ñu defee ko nii rek ni ma ko waxee woon ci ndigal li nga xam ne moom la sang bi joxe woon mooy ñetti fanu koor yi melo bi muy amee mooy soppeeku waaye ñetti fanu koor yi moom mënta ñàkk kon bis bu nekk dafa am loo xam ne mooy baatin ba saa su ne su jotee nañ ko dundal ah bañ xëyee ca fa nga xam ne mooy tàmbali ba di cosaan di ca Cambérène 2 bañ xëyee jàng nañ fa ay kaamil xatmu nañ ko a ah sëriñ seet ci njiitam mook sëñ fàllu Cissé ak sëñ Abdou Khadir mi ak mbooleem daara ji ànd nañ ñu toog jàng kaamil yi xatmu ko bi mu paree sëñ seet jotale ay kàddoom sëñ Abdou jotale ay kàddoom muy kànt ca ak ngërëm wax dëgg yàlla ah biñ paree loolu lañu ñu liggéey bi muy ci taxawaayu média kër gi eh, Ndiamé TV ci ci njiital kon taxawaayu Ndiamé TV ci njiital Baye Demba Sarr ak mboolem ñi mu àndal ah, ak taxawaayu ci média wu daaru ca kanam ah, ci njiital sëñ Mamour Cissé ñu def fi ñetti plateau yu am solo wax dëgg yàlla xañ na góor yàlla dañoo njatt sax ne ñu faw ñu yëkkati kàddu waaye plateau bi tàmbale ci diggante Cheikh Elimane ak sëriñ Moustapha Loum wax dëgg yàlla jataay bi rafet na kàddu yu leer na ah ñaareelu plateau bi tënku ci alaaji Jibi Sey ak Seydina Ousmane Ousmane Seck wax dëgg yàlla moom it ah, naka noonu ah, palato bi ci mujj nag ah ku nekk ku nekk xam na ne ku gis jataay bi xam ne mbooleem kàddu guñ daan joxe ñett fan koor ci loxol sëñ seet jaan la daan jaar mu yoroon liggéey di ko liggéeyee liggéey bu rafet macha allah kon yàlla na moom it wax dëgg yàlla ñu ameel ko cant ak ngërëm gis nga plateau bi mu def mook sëñ Abdou Khadir bi nga xam ne moo àndoon ak dongo yi ñëw ca kër ga ñu xëy wàcce alxuraan ji kaamil bi di ñaan eh, lépp lu ñu fa ñaan yàlla ko yàlla nangu yool bi yàlla jotale ko borom a ah, li nga xam ne nag moo tënk jamono ah ba nga xam ne bis bi nañ ko daan doxalee nekkul noonu lañ ko defee ah ki ko fi wàccee kenn la moom rek moo ko mën a seppi kon ñu ngi koy ñaan mu seppi ko labal ko ci géeju dem a ah, ba mbooleem loo xam ne ñu ngi ko doon yëngatu ci diina rek su jotee ñu delluwaat ca nañ ko daan defee ren nag bis bi damay wax ni mu amee nii ndigal la ndigal la tukkee ci ki nga xam ne moom la ko yàlla jaarale woon muy Seydina Alioune moo ah mu lañ ci xalaat ñu ne ko daal bis bi yàlla dogal na ci yow la ko yàlla wàccee woon nga joxe ci ndigal yaa ngi nii toog ndigal la ñuy déglu noo ko joxee rek ñu jëfee noona mu ne ñu ah kon de wax dëgg yàlla eh, joxeel yëgleel daal ne mbooleem cheikh moussa fu ko bis bi fekk na jàng alquran su ko mënul mu jàngalu ko def ay bernde màggal guddi gi ci fa koy fam ko fekk ci jàng alquran jàngalu ko ak tudd yàlla ak def ay bernde wax dëgg yàlla loolee am nañ ci yaakaar gur yàlla yëpp ci lañ taxaw te mooy li nga xam ne moo rafetit nag ndax te ñett fanu koor li muy yaatu yaatu yaatu li ko gur yàlla di bëgg-bëgg ak at mi yi nga xam ne activités yi ñàkk na nga xam ne gur yàlla yëpp bëgg nañ yëngatu waaye taalibe moom amut lu kawe ndigal te damay wax a ah, bu ñu xoolee ci doxinu taalibe xam ne su at mi yegsee siyaare daaru yegsi a ah, ñu def ko ah ci defuñ ko ci dajee ndax dañoo jox ndigal kenn ku nekk fa nga toog ngi def ko ñu def ko ci dal dal nga xamne ne kilifa rek ñoo jox siaré ji suñ ci tégué weer lu mat lu melni ni fan koor yegsi ñu war ko taxawal li yalla nak mo ñu dellu ci ciosan loolu la xam-xam nangu kon lolé la señ bi jëfé muy daaru moy pays ba ah li teunk daaru ba defuñ bis bi ren ci dajé loolu mo teunk ñetti fan koor ba defuñ ko ci dajé ñu am ci mbégte bu baax nak jëfé ndigal li ci ak cant xamne defé wuñ ko ci benn barab waaye yaatu rek lay gëna def ndax kenn ku ci nekk foofi toog yaa ngi koy dundal ci ci bis bi ci waxtu yi a ah, ba mu jeex kon liñ ci def yàlla na nekk ngërmande ah, ànd ak yokkute am nañ mbégte bu baax a baax a baax a baax ci jataay bi bis la boo xam ne xañ na ba muy taxaw fekkee nañ ndorteli kon xam nañ ne yokk na te wax dëgg yàlla nii ngeen ko taxawalee nii ren a ah, mel na ni xumbut de waaye nag kàddu gi mën naa yegg foo xam ne suñ ko defee woon te mbooloo sax du ci joti kon wax dëgg yàlla yéen ñi am xalaat bii am initiative bi ànd ceeg waa Daara Muxlisiin ak mbooleem góor yàlla yi loolee cant ak ngërëm lañ leen ñaanal di ñaanit média bii ngeen xam ne moom ngeen sémb te muy seen bëgg ci yéen yàlla yi mi ko mën a yëkkati yàlla na ko yàlla yëkkati yóbbul leen ko foo xam ne dina kawe seen njort ba nga xam ne mbooleem lu kër gi soxla su dee tele la su dee rajo la lu mën a doon yàlla jaaree ko ci yéen ba lépp ñu bëgg a jàllale ci message ci kër gi mu yegg foo xam ne foo ko yi am nañ mbégte bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla li fi tuuru ci xam-xam euh, jéggi na dayoo wax dëgg yàlla di am ak cant rek di bigeeru ganaar di wax ne bis bii nañ ko fonk nañ ko fuglu ndax mooy suñu laytu xadr mbooleem nit bis bis muy fuglu ci lislaam rek ñun loolee muy ndamoo ci lislaam ci bis bi lañ ko jëlee ndax bis bii ci la borom daaru ne ñetti fan ci weeru koor ci laa yegg ci yàlla bu mën caa yegg leen jàmm ku ma jox sa bopp te bàyyi maag sa bopp ma la ci yàlla ba nga ko ñu fekk ci àdduna fu mu ñu mën a fekk ah nañu fas yéene dundal ko ci nuñ ko mënee def ci ay teraanga a ah, yee ci jaami yàlla yi wan leen ci yërmande ah def wan leen ci leer gi nga xam ne moom la Cheikh saa joxe ndax bis bii nag ah ni ko sëñ Elimane waxee bis la ci bis yi ndax lislaam alxuraan yonent bi yàlla nga ko wàcceel ci weeru koor laylatul xadar mu nekk ci weeru koor yoonu mu murit taxaw ci weeru koor Cheikh Moussa leer gi mag gi yàlla bi mu koy jottale ci ñetti fan ci weeru koor la ko jottali kon weeru koor dañ cee am cër bu rëy boo xam ne wax dëgg yàlla ah, su jotee fu mu mën a fekk waaye rek na fas yéene rek toog dundal biis bi ci ni ko yàlla dogalee mu mën ko wax dëgg yàlla am nañ cant bu baax am nañ ngërëm waaye di delluwaat di ñaanal mbooleem njaboot Cheikh Moussa waaye ci njiital suñu alaaji Keeba ah, teg ci Seydina Alioune mi nga xam ne mooy rakkam ak ay rakkam yëpp sant mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoom la Cheikh saa bàyyee liggéey bi ñu koy doxal ba mu yegg si fii kon ñu amaat beneen part de responsabilité ci ñun ndaw ñi nga xam ne tey jii mën nañ ne woote bi suñ loxo la nekk ñoo ko war a doxal ñun ñoo war a génn saafante suñuy morom ñoo war a gën a saafanteeg jamono ñoo war a génn wax ak jaami yàlla yi ngir lii nga xam ne Cheikh Moussa Cissé da koo yeesal mu nekk loo xam ne lu ump jamono la te ma dégg Seydina Ousmane wax ne Cheikh Moussa indiwut lu bees indiwut lu bees waaye dafa beesal kenn mosa sa indi lu bees nag ca aadama alayhi salaam ba tey ba yàlla wàccee aadama ba tey jël lislaam yëpp ko ko keneen ku ñëw da nga koo beesal waxtu boo koy beesal nag coow day bari ndax nit lu mu yàgg te miin ko rek waxtu boo wootee loo xam ne la ko wootee dëgg la benn dëgg bi la waaye ni nga koy wootee melo bi wuute na rek mu weddi kon ñun dañu amul sas wu rëy woo xam ne dañu war a génn wax ak te damay wax jamono yëngatu na te nit ñi lii ñuy woote xamaguñ ko am na ci ñoo xam ne kàddu gi sax leeragut ci ñoom te gis naa ne ñun góor yàlla yi dafa mel ni liggéey bi dafa sotti te liggéey bi tàmbaleegut liggéey bi tàmbaleegut mbooy gi yaatu na te sëñ Keba ñaa daan wax ne kuy bay ci lëndëm da ngay commencé ca wewu tànk nañu fexe kàddu jaam ñi yàlla ngir ñu mën a ñëw ci texe gi te texe gaa ngi nii li ci des nag mooy ban mat lañ war a am nan lañ leen ko war a tàllalee nit dina yor wurus nag di ko tàllal ñu fel ko na xool moom mi tàllal wurus bi nan la mel na xool nan la ko tàllalee suñu waa ji baax ji ne muy mu saa Cissé dama ne nit mën na koo dégg te xamagoo ko di ko weddi waaye boo ko gisee rek loo waxoon tuub ko bàyyi waat xel ci kooku te xam ne du saayir bi baatin bi la waaye du baatin bi saayir bi la kon ñoom ñaar benn mënu cee ñàkk may wax ne ku ko weddi te xamoo ko bés boo ne jàkk nataalam ak loo ko mas a mën a wax boo ko waxut ci biir tamit di ko tuub ci sa xol kon dafa defaroon bitéem ndax li ci biir nit ñi mënuñ cee yegg li ci biir lañ xam kon nañ fexe sange jëmm ji góor yàlla du fooye boppam yàlla wàccewuñu pour caaxaan kon buñ fooye suñu bopp mbooleem loo xam ne lu yàq jëmm la ba nga xam nit su ko gisee loo ko mën a waxee mu xeeb ko nañ ko moytu mbooleem loo xam ne luy defar nit la mbooleem loo xam ne luy sange jëmm la mbooleem loo xam ne su ko nit xoolee ci mën a xamem woote bi ba jot ci nañ fexe dëgmal loolu jublu ci Cheikh foofu la tegoon tànkam dégg naa ci biir waxtaan Seydina su wax na ko charia jamu ko xaqiqa jamu ko tariqa yi naka noonu kon amul lenn lu ci yàq mbooleem charia taxawee na ko ba mu mat mbooleem li xaqiqa soxloo taxawee na ko def na ko ci ay ñoñam mbooleem lu tariqa di laaj teg na ci tànkam kon kii foofu mu teg tànkam moo tax mu ne mosuma mooy yàlla kàddu gi ndax mën nañ koo dégg lu ne góor yàlla yi wax nañ ko waaye mosuñoo dégg góor yàlla yi ne mosuñaa mosumaa mooy yàlla ab taalibeem dégg kàddu gi mu rëy lool mu yëkkati xaalisam teg ci ne leen képp koo gis ku maaseeg moom ak ku fi ne képp koo gis ne lii mu wax mën nga koo teggi waxal boo ko teggee yaa moom xaalis waaye ba tey xaalis baa nga fa ci nelaw kenn du ko teggi kooku dafa am ngërëmal yàlla jël dundam dëppale moo ko dëppale koog li yàlla gërëm kon nañ ko roy xam ne kuy xuus ci lëndëm sab imaam ngay xool te Cheikh Moussa mooy sunu imaam ne woon na maa yàlla loolu waxu ko yem ci waaye da koo jëf ci zaahir ak ci baatin Cheikh Moussa ni mu ne maa gën a tabe yàlla du ko jëf ci zaahir du koo jëf ci baatin amoon na njëriñ tey jëriñ jaam yàlla yi amoon na xam-xam te di ko jottali nit ñi kon nañ fexe góorlu fexe gëstu ba am xam-xam waaye fexe ba jubin nag ñaar yi ñooy ànd diinal huddaa la wa diinal xaq kon nañ fexe am dëgg fexe am njub ndax Cheikh Moussa loolu rek la joxe mu ñu lim ñu teg ci jamono nañ fexe xenc ko te xam ne mooy royuwaay mboolem borom xam-xam bu mos a kenn mosu koo jam kon li lu ñuy fexe ba ñu jaar ci ñun di am accès ci moom nañ ko moytu ne ko nañu wodd suñuy kaddu warmaal ko defar ko waaye na dëggu nag nañ teral jaami yàlla yi sañu ñoo xotti war ma sax ma la waxuma la ak nit waaye su wax dëgg jotee nag nañ leen ko jottali ba ñu mën a jot ci message bi kàddu yooyu lañ amoon di ko dénk suñ bopp waaye di ko dénk mbooleem koo xam ne maasee nañu ngew ci woote bii tey wax ne boo xoolee xam ne tekkaareel ji bari na a ah, boo xoolee fi ñu toll ni woote bi ci biir kër gi sax ci lañ gën a sonn ci wooy jaami yàlla yi li nga xam ne moom la Cheikh Moussa joxe te damay wax musaa taw tawhid la joxe dañ ne maarifa Cheikh Moussa li mu joxe moo gën a kawe fa waaye soo amul maarifa doo ci jot leeru yàlla la joxe ci xol loolu moo tumuranke moo tax may wax saa su ne ma ne dara manqué wut lenn rek moo manqué mooy leeru yàlla moo tax soo waxee ñu ne xam-xam dëgg la xam-xam du jeex dañ cey jeex nit mënu koo jeexal keroog ba nga jàppee nag xam nga rek keroog nga tàmbalee ndax am na loo ump kon ndéem xam-xam duñ ci jeex nañ ko gëstu nag waaye nañ fexe li Cheikh saa bëgg ñu jeex ci mu ñu fexe am tawhid tawhid la yàlla gërëm te moom la Cheikh Moussa sàmmloo moo tax may wax ne leer moo manqué adduna boo xoolee ba ko yàlla lee dénd ba tey mbooleem lu fi ne rek xam ko taxawal te mbooleem lu fi ne bu koy taxaw ci nit lay jaar ndax waxal ma aadama kullaha kon xam-xam bobu moko taxawal kon nit ñi lu tax ñu bari xam-xam la yalla waxon ci waxal la ma aad lasmaa kullaha waye lu tax jubuñ nak moy amuñ leer leer gogu ñu manqué nak moy tawhid bu Cheikh Moussa di joxe motax xam-xam amna ci adama leer fi amut leer moy tax nit jub nitu politique ak nitu diina ak ñepp ngi yakante ci media bi ndax lolé tay ñan ñoo wala taxaw pour atté ñan la kon waa kër Cheikh Moussa Cissé la loolee nañ fexe gëstu xam-xam am ko ba fexe fexe tegee ci njub te fexe euh, dimbili ñoon jamono ndax kat dañoo màmm ci lëndëm te jàpp nañ ne li ñekk moom la te fekk xam nañ ne du ko waaye am na naxtaan boo xam ne suñ leen ko deful rek ba wan leen lim doon ci ay kàddu yoo xam ne dina tegu ci yoon mën naa am rek dinañ mujjee puso bi ak saa mu réer te suñu kilifa yi nga xam ne ñoom la Cheikh Moussa joxoon woote bi ñu doon ay kele yoo xam ne ñenn ñi da leen tàllal paas ku amul gëm nañ ne bëgg bi mu Moussa amoon ci ñu jàll xam-xam bi ñoom yeggale nañ ko kon duñ def lu dul ñaanal leen yàlla dëgëral seen taxawaay yàlla wéral seeni i cër waaye di soññaat suñu bopp ci fexe tënku ci njub ci lu feeñ ak ci lu nëbbu ñu fexe wéet gore wéetale ku gore ànd ci dëgg ànd ci muñ ñaan yàlla mu suturaal ñu rek ah ba yen bii ah fi ko borom bëggoon mu yegg ah mu yegg la fa tan bokk ci ñukoy koy yeggal rek ala kulli al fi mu bëggoon mu yegg liggéey ci yalla lolu fi mu bëggoon mu yegg dana ci yegg waaye ñu ñaan su koy yegg mu yeggale ko ci ñun nak ci yeggali ñu gën a rafet wax dëgg yalla kaddu mbekté la xajna kaddu yi wax sax mënon na ci ñak way nak ndigal su joté dañ koy jëfé rek di santat bu baaxa baaxa baax mbolem ñi nga xamne lañ daan andal di taxawal li di ko di len santat bu baaxa a baax xamne ni la ko yalla dogalé ren ah muy li nga xamne mo fi xew muy pandémie bi nga xamne mo dox digënté jamm ñi ba kenn ku nekk ci daw sa moroom waaye moo xool bi waxtu woo xamee ne li ñu war a boole boolewuñu rek yàlla wàcceeluñu loo xam ne moo ñu sori le li ñu war a boole mooy yàlla yàlla moom nañ woote ko jëm ci moo tax ma ne ku ko fàtte rek moom la neex ku mu fàttali boppam dootoo ko fàtte diggante daaw ak ren jamono yëngu na nit ñi tiit na Cheikh Moussa neewoon na nag bu xiif dënnoo li ma joxe rek ay jàll te yëg nañ ko mhm. képp ku taw yi nekkul sa xo rek nga yaakaar nga ne lii du la fi bàyyi waaye jotewuñoo ak moom dara dafa ne ci yoonam ñu ne ci suñu yoon dama bàyyi sëriñ waxoon rek dañ ne mbas mi day wàcc mu ne dañuy yéeg kuy wàcc ak kuy dara waaw gannaaw dañ ne mbas mi day wàcc balaa la buy wàcc mu ne ko ñun dañuy yéeg kuy wàcc ak kuy yéeg jotewuñ dara nañ def li ñu war a def xam ne yàlla noppi na xalaxal mawta wal hayaata gannaaw dee la njëkk a bind nag ci dund kon nañ xam ne yàlla noppi na ah ñu nekk ci li ñu war a nekk fexe sàkku ngërëmam ci keppaaru Cheikh Moussa ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax na wa aaxiri ndax ma naa añ alhamdulilahi rabil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullah jëri ngeen jëf